bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi wa jaal kalaami rashidan wa murshidan wa fikrati nawi wa qalbi arshida asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërëjëf sëñ Abdul Qadir Jili noo ngi rafetlu bu baax kàddu yi nga xamante ni moom lañ fas yéene yëkkati noonu nga ko waxee rek mooy diggante daayiratu Rawdu Rayaahiin ak daayira Muqaddamatul Xidma liggéey yi ñu yàgg ànd liggéey yu baree baree bari la te mën nañoo wax ni lii benn la ci ndax diirub liggéey bi tàmbali ci biir jumaay Sëñ Tuubaa ji daayira Muxaddamatul ma di amal ay liggéey yu am am solo lépp lu mu ciy def ci fànnu xam-xam da koy ànd ak daayira Rawdu Rayaahiin loolu nag mu mel ni ànd boobu àndu cosaan la waaye ànd bi nag li ko gën lëkkale mooy Cheikh Saliou Mbacké yàlla nañ ko yàlla fayal te taas ñu ci barkeem moom moo gënoon a boole daayiratu Rawdu Rayaahiin ak muqaddamatul xidma bi nga xamee ni ku ne xam na ni muqaddamatul xidma moom am na lu mu ràññikoo mooy bis bu màgg bi nga xam moom la ñuy defal yoon sallallaahu alayhi wa sallam bisu gàmmu gi da ko yàgg di ko def di ko yàgg taxawee waaye bi nga xamante ni daayira muqaddamatul xidma yëkkati na ko ayat yu bari bi nga xamante ne raw du taxaw na sëriñ bi daf leen wax ni dem leen ngeen ànd kook daayira muxaddamatul xidma mu nekk ay taxawaay yu ama am solo ñu di ko àndee beneen bi ci des mooy liggéeyu xam-xam yi liggéey yooyu nag bi ci jiitu mooy waxtaani koor gi nga xamante ni moom lañuy ñu amal li ci ëpp ginnaaw bi nga xamante ni yàlla dogal na ba ñu tànn tamit ba noppi ginnaaw buñ ko tànnee mbooleem waa Rawdu Rayaahiin dañuy daje ak kilifay muxaddamatul xidma waxtaan ci thèmes yi tànn ko ba defar ko journée de validation suñ ko validé nag yàlla dogal na ci lañ koy mën a door a tàmbalee waxtaane waaye naka noonu tamit buñ ko liggéeyee ba sottal ko ci am téere la ëpp ca ña koy saytu dañuy ànd daayira Muxaddamatul Xidma ak daayira Rawdu waaye li koy gën a firndeel nag mooy exposition bii nga xamante ni yàlla dogal na ci xalaatu Cheikh Mouhamadul Bachir mu sëñ Bachir Abdoul Qadir mu yor kàddug yoon wi moom moo lëkkale diggante rawdu rayaaxin ak muxaddamatul xidma ak ay yem nga xamante ni ñaari mbooloo yi moom ñaar lañu waaye jenn lañ xamante ni kenn ki ngay gis fii mooy nekkaat fële ka nekkaat rawdu mooy ñëwaat nekk xidma ki nekk xidma mooy nekkaat rawdu kon ñoom ñaar ñaar ñañ joo xamante ni jenn jëmu lañ kenn mënu see dem bàyyi sa moroom loolu nag muy liggéey bu amu am solo ndax dafa mel ni kenn ki dafay taxawe ba nga xamante ni fa la mën a yem moroom ja jële yóbbu fa ca des kon kenn mënu see dem bàyyi morom bi loolu nag ànd bu rafet la kilifa yi nga xamante ni ñoo ko jiite tàmbale ko ci sëñ Afe Buso ak sëñ Ahmadul Badawi ñoo ngi ñaan suñu borom yàggal leen fi gën leen a taxawal waaye ñi nga xamante ni tamit ay jëwriñ lañ jiite liggéey bi nga xamante ni lenn luñ ciy séq ñoom ñoo koy ànd di ko taxawee ñoom tamit ànd bi rafet na te am na solo ñoo ngi ñaan daal exposition bi ubbi giñ ko ubbi yàlla na nekk mubaarakul ibtidaa yi bañ àgg ci maymunul intihaay kon ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waaye di beralu cant nag MKTV bii nga xamante ni moo nekk ci biir jumaa ji Serigne Djily di ko saytu ci liggéey bu am solo bi muy liggéey ci biir exposition bi nga xamante ni thématique yi ñu fi waxtaanee fu waaye toll ci biir àdduna bi ak ci bitib àdduna foo nekk da nga ci jot loolu kon ñoo ngi ñaan yàlla suma subhaanahu wa taala yàlla nañu àgg ci may maymunul intihaa yi di sant ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. زار وفي سفر